di marché zinc ba nga xam ne rek moom moo nekk ca pikin foofee nag néew na nga gis ay doomi aadama yoo xamante ni ñu ngi wéyal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di dandante bi ba tax rek jiitu moomeel ba nga xam ne rek moom moo nekk ca woowule diwaan di yëglu ngir rek doomi aadama gën a bàyyi xel li nga xam ne moom moo di mbas mi mbokki lii lépp tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram asalaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuy waat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak ñu ñuy waxtaanee li nga xam ne rek moom moo di mbas mi euh, ci yile jotaayu xibaar loo xamante ni gëj nañ koo dégg mu di cas importé tey jii nag am nañ ci ñeent yoo xamante ni daal nañ koy nemmeeku ci aéroport international Blaise Diagne lu tolloog fukk ak juróom-ñetti cas grave itam daal nañ koy am ñu ngi leen di saytu ca kër euh, docteur junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn test yoo xamante nañ fukk yi ak ñeent nag cas positif la ñu am ci ñoom nag juróom fukk yi ak juróom nag di ay cas contact ñetti cas communautaire la ñu am am nañ ko te xamuñu rek fan lañ jëre doomu jàngoro jurumel docteur Marie Xemes Ngom moom moo yoroon kàddu bés bi ñu déglu ko. ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak ñeent dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji. ci yooyu juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar mooy ñi nga xamante ne moom lañuy wax contact mooy maanaam ñi nga xamante ne suñu bëri bu liggéeykaay yi fajukaay yi ñoo leen di topp te leen di saytu. am nañu ñeenti cas nag li ñuy wax kaa importe mooy ñu ngi dugg si fii ci réew mi jàll ci aéroport bi ñuy wax aéroport international Blaise Diagne bu jaas ñetti kaa ñoom la ñuy wax ne ay cas communautaire lañ te tey jii ñu ngi leen di gis ci Dakar Plateau fii ci Dakar am na benn. fee ca Touba am nañu ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci ñi nga xamante ne feebar nañu bi ñu leen saytoo seen yaram anatul ak doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak juróom-ñett cas grave nag am nañ ko ci suñu bërëbu sawetaas yi mooy maanaam service réanimation yu nekk ci biir l'hôpital yi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci l'hôpital yi fi ñeen di fajee seen wër gu yaram mu ngi ànd ak tan ci bësu tey bii bi mbas mi Covid 19 duggee ci senegal ba léegi ñu fàttaliku mooy ci mois de mars bi mu amee ñaari fan ñu ngi tollu si ñeenti junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñi nga xamante ne ànd nañoo doomu jàngoro yi bi ñu leen seetee gis nañ ci yooyu ñaari junni ak juróom téeméer ak fukk ak ñaar ñoom wër nañu. seen yaram kenn gisatu ci doomu jàngoro ji ñeent fukk ak juróom-ñaar génn nañ àdduna làkku nañu ci ñi nga xamante ne ñoo des ci bërëbukaay liggéeyukaay yi fajukaay yi bu baax laa wax te ñu leen di faj ñu ngi toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent mbas moom mi nag naam réew bu Sénégal mu ngi def ay jéego jëmale ci wàll woowee nag doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo koy am mu mel ne rek mi ngi gën di ah, bari ñi ci faatu itam nazalika nag noonu bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso moom moomee nag di ñaax askan wi ñu gën farlu lépp lu soxal wàllu cet gi dandante bi lépp li nga xam ne itam ah, corps docteur moom la santaane ci wowule ah, wàll professeur Moussa Seydi di xam le nekk ab tànn kese la gis ci doomi aadama yi nga xam ne ay aji tawat lañu nekk ci kër docteur te ñu leen di jox ak garab gi di hydroxychloroquine ak tan doon lañu gis ci ñoom ñu teelu reportage bu Mohamed Samb Sénégal rawatina fii ci ndakaaru bi nga xam ni lu ëpp ci kaa yi fii la ñu nekk bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso chiffre yi nga xamante ni si fësal nañu ko nekk na lu jégg dayu askan bi ci seen wàllu bopp dafa mel ni que dañoo bàyyi seen loxo ci xeex bi ñeel Covid 19. entre weer bi ñu jigéen na ak weeru léegi kaa yi yokku nañ lu ëpp ñetti yoon. mais ci ñi nga wàllu wër am na loo xam ne vraiment jéego yu bari am nañ ko ci yoo xam ne xool nañu ñiy wér yokku nañ lu mat juróom yoon. ñii faatu nag loolu moom mooy mbir bi nga xam ne moom la ñu war a bàyyi xel parce que ñii faatu mu ngi yokk je pense ñu ngi gis presque bés bu ne ñu annoncé ñoo xam ne faatu nañ ci feebar bi. et boobaak léegi ñu ngi woon ci juróom ñoo xam ne faatu woon nañ ci weer ba le fi mu nekk nii ñu ngi ci euh, ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne faatu donc loolu mooy bokk indicateur boo xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax muy wan ni naka la feebar bi di duggee ci biir dëkk bi et aussi ñi nga xam ne dañu faatu seen kër donc dafa nekk euh, mbir boo xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax. ci wàllu ñi nga xam ne ñoo am feebar bi bu ñu xoolee ci ñu ngi wax cas communautaire def naa Sénégal léegi ñëpp xam nañ luy cas communautaire bu ñu jàppee ci ci téeméer fukk yi ñooy ay cas communautaire. benn jéego bu am solo boo xamante ni si nemmeeku nañu ko ci paj gi ñeel Covid 19 loolee li ko indi moo di hydroxychloroquine bi nga xamante ni moom la ñuy fajee am na ay résultats yu baax. garab bi nag gis nañ ne ñi ñu koy jox ñooy gën a gaaw a wér parce que fukki fan. ak genn wàll à peu la ñu wér ñi jëlul garab yooyu ñoom dañ def fukki fan ak ñett te ñëpp ñi ko jël ak complication am ñoom ñëpp wér nañ kenn amu si complication kenn faatuwu si traitement bi baax na pour malade bi gën a gaaw a wér kon wàllaateem gën a gaaw a jeex baax na it parce que c'est bien supporté ñun gisaguñ si lor am na ay lor yu ndaw yu muy indi mais loolu du indi benn problème ñenn ñi sax dañuy continuer seen traitement. dund ak virus bi naam lu baax la waaye li gën a am solo moo di ku nekk mun a fegu ba mucc ci jàngoro ji loolee moo di xalaatu docteur Abdoulaye Bousso ñoom ñi nga xamante ni nag seen xam-xam dafa màcc ci wàllu wérgu yaram ñu ngi ñaawlu stigmatisation bi maanaam beddente gi waaye itamit askan bi li ñu xaw a yolomal seen loxo tuuti ci aaru gi. jërëjëf Mouhamed Samb cant ak ngërëm ñenn la dañuy desandi ba tey ci mbas mi ginnaaw ay dogal yoo xamante ni jël nañ ko ngir dem beeg dikk bi dooraat fii ci réew bu Sénégal mu mel ni nag gaaru ceer ba nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu tëngee ca foofee nag gisaguñu fa lépp loo xamante ni dina mën a tax ñu daal di biral li nga xam ne moom moo di wàllu cet gi bu ñu sukkandikoo ci comité de gestion ba nga xam ne moom moo nekk ca wowli diwaan bépp matuwaay war ci wi daal dinañ koy jël bu Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb Dakar routier bu Tëngéej nag nemmeeku ñu fa benn liggéey boo xam ne bii rek day wane ne dimanche ji mën nañoo ubbiwaat gaar bi waaye nag terewul am na ay matukaay yoo xam ne jël nañ ko ci kàddu yi ki nga xam ne nii moom mooy président gaar bi lee. Euh, mën na li tubaab naan euh, ouf de soulagement parce que yàgg ko bëgg euh, xam xam nañ loolu nga ñu yàgg xam bon gaar routier bi comme ni ko gisee duggoon nañ ci ko peinture jëm ko defaraat mais mënuloon sotti mais comme nag yàlla dogal na tey feebar bi moo tax ba état moo jël ay disposition boppam jàpp ni gaar bi ak gaar boo maraîcher bu Pikine ñooy ñaari gaar yi nga xam ne ñu officiel ci Euh, moo war a redémarrer waat kon duñ def loolu sant yàlla defe naa suba euh, direction générale bi nga xam ne ñoo yor lépp lu hygiène publique fi la ñuy xëy ak seen logistique bépp pour fas yéene ko raxas defar ko ba mu set génn fi lépp loo xam ne bokk fi kon jàpp naa ni vraiment mu ñu def loolu euh, di ko apprécier di ko tàccu di ko xaar tam ci jàmm. mu doon nag ubbite goo xam ne gii ñi di yëngu ci wàllu transport rafetlu nañ ko bu baax a baax gannaaw ba ñu toogee ñetti weer yoo xam ni daanaka amuñu benn activité. métti woon na trop métti woon na trop parce que comme ni ñëpp di yuuxu ah xaj na ñoon dañu gore rek kenn dégguñu waaye dal ñëpp moo ñu dal ay borom kër yoo xam toog nañ ñetti weer vraiment yëngatuwuñu ci benn activité amuñu lu yóbbu seen kër ba yàlla indi tey kon jàpp nañ ni vraiment aussi dana nekk parce que am na borom euh, ngam la yóbbu sa kër ci kàddu yooyu chauffeur di ñaan nag ay mesures d'accompagnement yu war gunge nag boobu ubbite xam le nañ ne jëwriñ jiñ dénk wàllu dem ak dikk xaarandi nañ ko ci altine bi fii ci gare routière bu Tëngéej ci mbas mi la ñu desandi ba tey euh, mbokk yi ca diwaan bu Pikine nag rawatina marché zinc néew na nga gis doomi aadama yoo xamante ni ñu ngi càmmoon teg la kër docteur di digle ci jamonoy euh, mbas mi rawatina li nga xam ne moom moo di rek euh, dandan tebi ba tax itam jiit bu bokk mu mel ba nga xam ne rek moom moo nekk ca woowule diwaan di yëglu ñu teewlu reportage bu Abi fay ak Modou Diop. respecter li nga xamante nit moo di distanciation sociale bi doon na lu jafe clients yi ñoom lu leen neex ñu laal commerçant yi jaaxle yaakaar ne seeni koom dana gën di gàllankoor ndox am ci poche ba lenn doon na luy jafe bëri na lool ña nga xamante ne amaan nañ ci doomu jàngoro gi ñañ fi déclaré waaye gouvernement bi ngir jël matuwaayam rek ne marché yi léegi da koy tijji juróom benn fan ci juróom ñaar bés boo xamante nit des nañ koy yeesal li lee doon na loo xamante nit respecté ko metti na ci marché bi. Ah, boo xoolee suivi bi des na tuuti quoi parce que tamit sénégalais yi la waaw boo xoolee sénégalais yi la parce que fii des temps ñun ñii dañ doon veillé à ce sol masque buñ bu fekkee am na lu jaaxal ñu woo la police ñu ñëw sanctionné leen. waaw sama plan de matuwaay ma jël mooy kilifa yi joxe rek waaw takk masque waaw di laal zel bi ngay laal zel di raxas loxo yi waaw matuwaay boobu daal lañ jël. ay fan a ngi nii client yi ñoom dañuy dem fa nga xamante ne moo ci grande surface yi wala sax ñu gën a taamu biir marché yi waaye fii nii de gis fi ku fi takk masque sax doon na lu jafe. remarque boobu ci marché bi def naa ko parce nit ñi da gis koo xamante ni daan la oh non feebar bi ah, gëw ma ko wala nga takk masque ñu naan day tax du ma nooyi wala daf may fatt te yaakaar naa wér gi yaram lu am solo la ci nit ki nit ki balaa nga naan naam da fay nekk. bombe à retardement mais nag li ma leen mën a expliquer mooy boo xoolee marché Zing moo fi nekkoon marché boo xam ne kenn tëju ko boo xoolee li tax tëjuñu ko mesures yi maire Euh, mooy mesure mesure yi nga xam ne maire jëloon na ko. bokk moomeel bi ne sax mënatul tax na itam nakari xolam a ngi. état bi nag moo war a gis ne ñun la war a dooleel pour ñu xeex ko fii parce que boo dooleelee mairie bi doole ngay ja ASC yi doole nga commerçant yi ci base bi marché bi dispositif bi dina mën a continuer jeunes yi di nga leen mën a mobiliser ñu bokk ci sensibilisation bi donc stratégie bi mooy. ñi éclairer ci à la base frontière bi ñuy jóg ma extra du ma militaire mais jàpp naa ne éclaireur yi ngay yónni ca frontière yi bu bu ñu dàqee noon bi rek jarul capital bi di tiit. l'hôpital yi mu ngi gën di fees di gën di déborder fii ci mim réew ndax saa su nekk ñu gis kaay di gën di law waaye teewul ñenn ci askan bi ñoom digle yi ñu ne jëfe ko dana metti ci ñoom. fay ñu dem fa sori lool fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Pikine nag Medina Sabax la ñuy dem foofee nag su préfet bi moom mooy sàkku ci askan wi ñu gën a xippi seen ay gët gën a bàyyi xel itam li nga xam ne moom moo di mbas mi ginnaaw dogal yi nga xam ne yolomal nañ ko mu ñeel lekk lépp lu soxal wàllu dem beek dikk bi mu ñaax askan wi bu baax a baax su préfet boobee Ousmane Thiaw lay wuyoo Ibrahima jàmmee ak Faly Gueye ñoom ñoo taataan ay kàddoom ñu déglu ko. ñu gën a góorgóorlu c'est vrai dans les marchés surtout luuma yi nga xam ne yooyu nag bu ñu waxantee dëgg am na lu ma ci jot a gis parce que démb barke démb maa ngi woon fii maa ngi woon di ba Ndiaye loolu nag dañuy gën a ñaax population gën a ñaax askan wi que ne yenn mesures yi nga xam ne moom la yombalal nit ñi yooyu yooyu lañ oyofal nit ça ne veut pas dire que ne bàyyi nañ lépp kon nag dafay am mesure yoo xam ne ba léegi mu ngi sax te dañoo gën a soxla nag nit ñi gën koo def parce que fu mu toll nii comme ubbi nañ lépp moom kenn xamatul kan mooy kan wala fal na mbir mi yam kon ku ci nekk sa protection individuelle moom ngay njëkk a gérer parce que fu mu toll nii kenn xamatul fan la mbir mi yem ak kan ak kan ak kan comme nit ñi ubbi nañ dema dikkarante bi dama foog ne la ñu doon def ba ñuy dégg feebar bi fee ak fee yaakaar naa ne tey la waalu gën a aay tey lañ war a gën a sax ci mesure yooyu kon yaakaar naa ñoom ci seen bopp ils sont très conscients de cette situation et en tout cas ñun on ne on ne se lassera jamais ñu koy fàtt ñu koy fàttali. vraiment askan wi à chaque fois que ndaje yu mel nii am. maire yi également ils profitent de toutes les occasions les chefs de village les chefs religieux pour vraiment jàpp ci liggéey bi. ñeneen ñoo xamante ni nag jël nañ dogal ngir fàttali askan wi ñu war jël ci ay matuwaay ngir rek daal di muyu li nga xam ne moom moo di coronavirus nag di étudiant yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca ngoy naka noonu itam ñuy xam ne rek ne fa ñu tegoon seen tànk duñu ko teg teggi benn yoon ñu teelu ko reportage bu Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. ñu yombal ci li nga xamante ni moom lañ doon dundeek virus bi élèves ak étudiants yi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci ngoy dañuy wéy di gëm ne fokk ñu continuer li nga xamante ni mooy mesure barrière yi tamit di wax ak askan wi pour ñu gën a xam lu jëm ci feebar bi. organiser def ay confection de masques et aussi distribuer de kits de lavage pour pour élèves yi nekk ci ñaari euh, lycée yi mu nekk lycée Ngaskop ak lycée Ngoy ci loolu nag dañu confectionné woon 1000 masques 1000 masques yooyu. établissement bu nekk dina am 500 masques pour le corps professoral et les élèves. ñu ngi commencé euh, seen defoon initiative euh, di def journée sensibilisation. ci cinquante 54 villages yi euh, euh, commune bi ëmb euh, te dañuy continuer aussi di wéy ci loolu. sous préfet bu Ngoy ne ñii de ay xale yu am jom lañ te ku nekk war naa mën a sukkandiku ci ñoom. pour daan virus bi. ci école yi pour jàngaat xam nañ ni feebar bi dëgg la mais feebar bi am na xeex bu ñu war a def ak moom xeex bi nag du armée du police du autorité administrative du autorité locale xeex bi population moo ko mën a xeex. ci naka mooy na jël les mesures barrières. Eli Fall mi nga xam ne moom moo jiite commune Ngoy di maire bi rafetlu na li nga xamante ni moo di initiative gone yi. Babacar Diouf cant ak ngërëm ñenn lay dogal yi ñu jël daal di ubbi li nga xam ne nag moom moo di restaurant yi ñeneen ñoo xamante ni gis nañ ci seen bopp lool ba tax itam mu doon mbégte ci ñoom di ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci woowule wàll suñu ay ndaw doxantu ci ñaar ci ay restaurant yoo xamante ne ni ñu ngi fii bokk na ci Noflay Beach ak itam fi nga xam ne rek moom moo di Kabylie ñooñee nga xam ne fekk nañ leen fa te ñuy rek daal di saytu wàll woowee nag li ñu xamle moom moo di asmbik képp la ñaareelu reportage bu Alxasan Ba ak Pape Sangoné Mbaye Omar Traoré ci xar kanamam nga mën cee nemmeeku kontante ak cawarte ci li muy tàmbaliwaat li nga xamante ni moom mooy activité am wante itam lu muy gisaat ay client yi nga xamante ni gëj na leen gis ba toog sax di waxtaan ak ñoom reetaandanoo ak ñoom ci suba teel gi nga xamante ni moom mooy bis bu njëkk bi ñu ubbiwaat seen restaurant yi ginnaaw dogalu kilifa yi moom ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñu muy liggéeyandool ngir mën a tënku nag ci li nga xam ne moom mooy digle yi. mbégte la delluwaat si sa sa yitte surtout que ñun liggéey bi ñu yore li si am gën a am solo mooy pas-pas bi nga daan am ak nit ñi. jonkante bi waxtaan beeg euh, ñi ñi nga xam ne ñoo lay fekk si nga war leen euh, defal li ñu bëgg yow aussi loolu manqué woon nañu bu baax a baax a baax a baax. clients yi ñoom xaaruñu dañu yàqamti woon sax ñu ubbiwaat lii di resto yi ku ci nekk si ñoom nag ñëw ngir def sa commande toog jàkkaarloo géej gi ngelaw lu féex li di la ëpp ñu sori lool nag li nga xamante ni moom mooy confinement bi leen mbas mi imposé woon. Albertina kenn la ci ñoom reetaanu mbégte moom la amee. <laughs> je sens maa ngi sant ne ñu ngi tàmbaliwaat ndànk-ndànk suñu activité yi sàkk euh, woon euh, nañ ko ginnaaw ñaari weer bi ñu tëjoo mel ni nekk ci ay cage wante tey ji dafa mel ni dundin bi ci biir société euh, bi mu ngi tàmbaliwaat te loolu dafa doon loo xamante ni neex nañu trop. tënku nañu daal si li nga xam ne moom la ñu pour ñu def ko fii au niveau restaurant Noflaye Beach moom xam naa ne bàyyiwuñu loolu si ginnaaw parce que lépp li nga xam ne war nañu si matuwaay jël nañ ko jënd nañ yi ñu war a jënd di ñaan yàlla nag clients yi nga xam ne ñoo ñuy fekk si ñu nanguñu loolu xam ne dañ fi nekk pour ñoom pour satisfaire leen mais tamit dañ fi nekk pour protéger leen. on va continuer avec. Euh, daañu wéy di tënku ci Kabili fii itam ki nga xamante ni moom mooy géran bi mu ngi rafet lu baax a baax li ñuy tàmbaliwaat seen i activité tënku nag ci li nga xam ne moom mooy digle yi. yenn si ay tablam de leen lem rongé leen wante itam ay chaise ñu ngi dugg di génn euh, comment dirais enthousiasme affinité bi fi amoon tamit ngi reprendre at euh, ñu bëri ñu ngi ñëw toog ñi tamit gis ngeen ni ñu respecté distanciation sociale yi même ñi di def emporté sax dañuy def distance seen diggante un mètre. bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Tidiane Guissé yenn si ay clients ba léegi nag seen xel dalut ba tax sax ñoom dañuy woote ñu def ay commande bu ko defee rek. ñu livrer leen. dañuy toog seen kër woote après ñu defal leen livraison à domicile. Alxasan Ba cant ngërëm ñeel na la ñi nag sóobu nañ lool ci xeex li nga xam ne moom moo di mbas mi di programme des Nations Unies pour le développement ñu gën koo xam ci PNUD ñu daal di fi ci ay koppar yu takko takku loole nag ci xayma ëpp na téeméeri million ci suñu ay koppar ngir jàppale yenn ci ay gox yoo xamante ni ñu ngi nekk fii ci réew bu Sénégal lu ci mel ni ñi Sandiara ak fa nga xam ne ah, moom moo di Ndiob dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Amata Jabaate nag moo fi teewal PNUD ci micro Alxasan Ba. ces populations les plus marginalisées ont besoin. xam ngeen ni ci biir gox yeeg goxaat yi am na ci ay askan yoo xamante ni daanaka seen loxo jotul seen gannaaw ci loolu nag ñun faaw bu weesoo li nga xamante ni moom mooy sensibilisation bi maire yi di amal euh, faaw nag ñun ñi ñëw itam ñu jàppale leen ci li nga xamante ni moom mooy seen kaaraange ñu mën a xeex nag li di mbas mi. moo waral ñu indi équipement yi jébbal ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen maire yi euh, ñu tànn ci nag juróomi commune muy ay commune pilote ba nit mu ngi dimbale ñi nga xamante ni ñoom ñooy gox yeeg goxaan yi euh, ci fànn yu bëri surtout nag ñi nga xamante ni ñoom daanaka seen doole demeewut noonu ci biir kit yi nag nga mën cee gis ay masque ay gel hydroalcoolique ay gants ay blouse yi nga xam ne ñoom ñi daañ ko mën a sol fajkat yi ngir seen kaaraange ay saabu ay ndox eau de javel lépp nag boo ko xayma toll na ci téeméer ak ñeent fukki million ci suñu koppar. ñu ngi fexe itam di liggéey ci li nga xamante ni moom mooy taxawal benn euh, programme boo xam ne nag dafay jëm ci jàppale yi di petite et entreprise yi ci biir gox yeeg goxaat yooyu ngir ñu fexe nag ba gën a jekkalaat seen taxawaay ci li nga xamante ni moom mooy xeex lii di mbas mi. en les appuyant dans les activités qui sont déjà ca Thiès Nord rawatina diwaan bi ñu naan ngent ku moywul nag njaboot gu bëri daañ leen toxal seen a sa makkan bokk na ci lu ko waral mu di ndox wi nga xam ne rek moom moo fa taaki xam lu ni mel di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu dëkkuwaay demoon ca diwaan bu cees jamono yi nag taxaw temb ngir rek daal di joxe ay caabi ci lu tollook ñaar téeméeru dëkkuwaay yoo xamante ni njaboot yi nga xam ne rek loolu nañ ci wowle wàllu daan ñu fa tuxu ñu teelu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir ngi nii de quartier bii di Ngent nekk ci Thiès noor at mu nekk bu nawet bi ñëwee dañuy inondé kër yi day fees dell ak ndox am na sax ñoo xamante ne tey jii de dañoo won ginnaaw seeni kër yi loole tax nag nguur gi tabax lu toll ci ñaar téeméeri dëkkuwaay fii ci ZAC bi fas yéene koo jagleel njaboot yooyu nga xamante ne at mu nekk dañuy loru ci mbënn mi. état du Sénégal daf ci ànd ak banque islamique de développement mu jox ñu fukki milliards ak juróom programme bi tàmbali woon na xawoon yéex tuuti waaye coordonnateur bu bees Colonel Karim Ndiaye ñu koy jaajëfal di ko félicité bi mu ñëwee ba léegi gis nañ yëngu bu ci am gis nañ ne tey 200 logements yi nga xam ne Thiès lañ ko tàmbali woon tey boo egsee téeméeri boo jël juróom-benn fukki juróom-benn yi daanaka pare na waxtaan nañoo ñoom xam nga ñun du ñu jël rek nit ñi ne dañ leen di yóbbu ci force déet dañ koy def mu am enquête ñu xam kan la concerné ndaxte li gën a jafe du dajale nit ñi ndaxte koo jëlee ci ndox yóbbu ko ci kër bu am bunt ak am caabeem ak euh, néegam ak saalam du bañ mbas mi nag bi mu duggee ci réew mi ba gis nañ ne daal lu jëm ci wàllu koom mi dafa daanu lool ba tax na jëwriñ ji sax nee na lu jëm ci wàllu logement ak ay bâtiment foofee la bëgg taxaw ngir yëkkati croissance. te boo egsee ci chantier bi nga xam ne loolu dëgg la te lu mën a ne la ndaxte gis ngeen ciment bi fii la jóge fer bi fii la jóge gis ngeen bunt yeeg fenêtre yi ay menuisier métallique yu ne Sénégal ñoo ko defar entreprise yi ay entreprise du Sénégal lañ waaye ba ci karo yi sax gis ngeen ne euh, jéegaani wuñ ko jëli ko Chine ñoom ñooy ñëw di ko defar fii. logement yi daanaka noppi nañ ci weeru ut bii di ñëw képp ku dëkkoon ngent de da nga ci ñu lor woon ci mbënn mi ci kër yi Cheikh Anta Diop bu ñu jógee ci diwaan bu Thiès ñu rekk daal di dem fa nga xam ne moom moo di ca Kolda foofee nag li ñu àddu bokk na ci rek xeex wàllu mbuxum lu war a mën a nekk la fi ci bu Sénégal lu mooy loolee tam faaw ñu bàyyi xel li nga xam ne rek moom moo di alam gi ñi xam lu ni mel di membre section locale bu forum civil bokk na kenn ci ñoom koo xamante ni moom moo biral yooyu les kàddu di rek Mujibu Rahman Balde dañuy taataan ay kàddoom micro Ibrahima Diallo. gis nañ ne soo xoolee wàllu alam bi xeex bi ñuy xeex pour alam bi mel ni mu nar a mel bokk na ci ger bi nekk ci suñ ci domaine boobule tant que xeexuñu ger boobule yaakaaruñ ne liggéey bi ñuy def dina antu donc loolu moo tax ñun ci suñ domaine ñu ci en tout cas taxaw tem pour xeex corruption bi pour que en tout cas attirer attention état bi ñi nekk ci boobule naka la ñu mën a taxawee pour xeex corruption bi pour en tout cas protéger suñu environnement def na ni ñaari at ba ñetti at commencé woon nañu xeex bi te daaw saa defoon nañ conférence de point de presse bu mag boo xam ne dañu boole woon euh, étudiants yu nekk Medina Yoro Fula ak section forom si biir yëpp pour en tout cas alerter autorités yi euh, dagum garab bi nekk ci côté Medina Yoro Fula ak ci région Kolda bi yëpp mais ci côté saa si beneen côté mooy alerte. mais am na côté boo xam ne ñu ngi ciy xeex mooy sensibiliser population yi taxaw <clears throat> ay kuréel yoo xam ne mun nañu liggéey pour ñu mun a dund ci alam bi te fekk yàquñu ko niñ ko nar yàqee mooy ñu agro agroécologie donc am nañ foofu projet bu mag bi ñuy déroulé actuellement ci commune Kumbakara ak set a Marewe ak forum civil ak euh, ISRA donc projet boobu day jàppale population autochtone yi mun a dundu ci alam bi te di ko protéger en en même temps Abdoulaye Diallo moom moo tataan yooyu lay euh, kàddu mbokk yi bu ngeen fàttaliku niki démb si suñu jotaayu xibaar yi nga xam ne rek euh, jot nañ leen koo digtal ñu ngi leen doon wax euh, jàmmaarloo yi nga xam ne ñoom ñoo am ca réew bu Mali askan wa daal di génn ci mbedd ngir rek daal di sàkku ki nga xam ne rek moom moo fa nekk njiitum réew jamono yi nag di Ibrahima Boubacar Keïta mu daal di teggi ay ndombal tànkam ndax anam wa nga xam ne rek moom lay jiite boobule réew nag neexu leen ci li nga xam ne euh, moom moo di xeex bi di imam Mahmoud Dekko nag nga xam ne di ab imaam waaye itam doon koo xamante ni sóobu na lool ci làngug politique bi bu ngeen di fàttalikoo ci atum 2013 sax nag àndoon na ak ki nga xam ne rek moom moo di Ibrahima Boubacar Keïta ci élection yi nga xam ne rek euh, sam amaloon na nañu ko fa dañuy teewlu tënk li ak itam ki ñu wan a lekk woowule euh, jëmm Ibou juuf la ñu seetaan ko. kenn ji du ñàkk ñu ne la. imaam Mahmoud Dikko kookee ñu ràññee ko ci wàllu diine ndax doon na imaam ak itam jamono ji muy yëngu ci wàllu politique imaam Mahmoud Dikko fekk baax ca diwaanu Tumbuktu foofe ca Mali mu nekkoon professeuru arabe laata ñu koy tàbb imaam bu juma bu Badarugu nekk ci biir Bamako moom nag jamono ji fës na lool ndax kàddu yi mu daan faral di yëkkati saa yuy xutba ba taxoon rek ñi nga xam ne ñooy kilifa yi fete foofe ca Mali doon nañ may nopp bu baax a baax ci loolu sax la taxawal rek ay kuréel yu bëri moom nag jot na nekk secretaire général de l'association bi ñu naan duppee association malienne pour l'unité et le progrès de lislaam doon xeex lépp luy dooneel diine islam ci boobu la diwaan moom nag nee na ab nit la gën a jege taxul nag mi nga xamante ne mooy jihaad rawatina li nga xam ne noonu lañu koy jëfandikoo mu nangu ci lu bëri atum 2009 la ñu gën ko fësal ndax taxawaay bi mu amoon ba kilifa yi ne dañuy woote rek benn code des personnes kitam de la famille mu ne dara noo da def kem kàttan ngir loolee du mën a antu atum 2012 jamono yi nga xam ne Mali ñu ngi tekk ay jàmmaarloo ci la jëloon sol ay dàllam rek dem tase ñi nga xam ne ñooy waa Ansar Dine rawatina seen kilifa ba te IAG al Ahli loolu nag taxoon na kilifa yi gën ko bàyyi xel. Imam Mahmoud Dicko ñu ne nag jàppale woon na président bi di Ibrahim Boubacar Keïta ci élection palum jiitu réew mi atum 2013 la woon waaye bu ñu doxalee ba atum 2017 daanaka ci lañ taxaliko mu gën a jege ñi nga xam ne ñoo fetti ci ku jegi li nga xam ne nag moom lañ ci mën a jàpp tamit atum 2019 moom amaloon na ci ab ndaje boo xam ne manifestation bu bëri woon nit la ñu ne nag toll woon na fanweeri junni ñeneen ñi naan fukki junniy nit yoo xam ne rek gisoon nañ leen ci boobu la ndaje imaam di ko nag ba mu jógee ci au conseil islamique du Mali jamono ji lu muy sàkku ci kilifa yi rawatina Ibrahim Boubacar Keïta mu jóge ci bopp nguur gi ndax dañu jàpp ne ni ñu joxe alale réew mi daal dëppuwul ak niñ ko bëggee jamono ji nag mu ngi lëkkaloog yeneen parti politique ak waa société civile ngir wéyal seeni manifestation yooyu jamono ji ñu leen di gis ci xolu Bamako jërëjëf Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yéen itam naka noonu boobaak léegi ngeen toppoon ñu ci les jotaayu xibaar ñu jaare fa daal di koy buur rédaction bi di leen jox di daje daañ fi teewaat ngir fi ci leen xibaar yi ci kàllaamooy ko ci 20 itam dañ ko defee noonu ci kàllaamooy tubaab lu mooy loolee ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fii ci télévision Futur Média kenn dal ak jàmm